xadiloo mu baax mi xadilu ah yow waa ah, yow bas bas bas borom tuubaa ngi noon di bas borom tuubaa ngi noon sama xarit bi mu ma mën a wax ci àllaaji fàllu lu baax ci bi gise maa bo ah Modou Ngaay ci direct bi Modou Ngaay xelil ma kaas ma daal di wéeru njaay sama doom jàng ci direct bi njaay sama doom ji loo bëgg a dégg Euh, jibi gise maabo sama waa ji mi ngi ci direct bi euh, yaay faal mu maam Ndiaye savon mi ngi ci direct bi Adamo sama xarit Adamo tamit def na geste bu rafet Adamo boss nigri def na geste bu rafet damaa ñëw Paris première jour bi ma ñëw mu dagg liggéeyam dagg billet ñëw fekk ma Paris fu ne mu yóbbu ma foofu teral ma Adamo mu baax mi kenn du yow ci réew mi nee naa la fii boo baaxee nit ñi dañ lay waxal lu baax boo bonee kenn du la waxal lu baax ah, ba pare sama whatsapp bi ñu ko yor dafa am ñoo xam dama leen a jox sama numéro ci Paris ñu jël sama numéro bi partagé ko ku ne di ma te sama numéro bi sama personnel la bàyyi leen loolu loolu baaxul yaa ngi dégg loolu baaxul su ma demee nii rek damay changé waat numéro parce que numéro bi dafa bëri euh, ay ay ay ay ay vocal yaa ngi dégg réew mi boo baaxee bëri ñu bëri bëri ay nit ba pare ñi ñu jox sama numéro arrangé wuñ ma tàppatale live bi parce que ay cas lañ lay envoyé maam Ndiaye déggal kii liim la wax maam Ndiaye nga kii lim la wax. man tontuwuma kenn j'ai pas de temps pour nekk fii di tontu pour lan may tontu tontuwuma kenn yi ngeen ma envoyé yëpp gis naa ko xalaatatuma tontu ci sama àddina whatsapp dimbali leen ma di ma envoyé ay video ay diw lii la la wax ay diw lii la la wax. waa yow bu fekkee nit wax na ma dara yéen ñi leen di tontu sax neexuma xam nga la laa bëgg ngeen di def bu ma nit xasatee wala mu wax ma dara dugg leen ci kontam ne ko Zénith bi day def effet. loolu laa bëgg ñu génn ko Mame Ndiaye dafa génne challenge bu bees loolu lu mu Zénith bi day def effet ah Zénith bi ñu jëf lu bari na nag wax fa dëgg yàlla loolu laa bëgg a dégg maam Ndiaye savon. ji sëy mbaxal lañ togg bu weex tàll benn yabooy benn karoot benn ñàmbi taajal ko seen maam seen maam lekk jumbeeru xale yooyu du bekk yaay ndugg na ba mu neex russi sama yaay teg na ceeb bi nuñ koy waxatee sama yaay ba jéeg sëy daa teg dawlinam mu sens ne sama maam loo bëgg a lekk sama maam ne ko ceebu jaga sama yaay russi ciebu jaga bi ba mu melni janjari bosto njaay russi ko yet mu ne wa det mu def soble lal ca laaj ba mu dok mu ñuluk daal digal sor tek ba mu bar mu sor yakal sama mam mu lek xale yi nga xamni ne seeni ndayit ba ñuy sey dañu mbaxalal seeni maam lu ma ci man wa ku sa nday mbaxalal sa mam lu ci man ah mënuma ci dara ñooñu ñoo ci tiktok bi lëmbe ko di wax ay bal wax fa dëgg yàlla ngeen ñi ngay envoyé ay message naa ma di la di wax eh gis naa lépp je pas de temps tontuwuma benn nonsense je pas de temps zénith bi day def effet Paris day def effet Tour Eiffel day def effet de Gaulle day def effet mooy ay de Gaulle oh my god <laughs> xanaa xamoo bu lan sa yaay gërëmee ay da por bu ne ngay wacc wàcc fe sa yaay mbaxal la togon wala ceeb ma xam ngeen li bu ngeen ko commentéeru ma bàyyi len aduna ak alakhira ko len rombati mu wax mal mu wax ci mam Ndiaye savon ne len ko sa yaay mbaxal la defon wala yaay mam maam Ndiaye bu jag bu diig la def def ci jeñu teul yakal maamu mu julli ñaari rak ñaanal bayam ñaanal ndayam xana sa yaay da togon mbaxal mbaxalu benn yabooy lu ma ci ma ah kaa noonu la tëddee yaa ngi dégg euh, bu ma paree ci loolu di di di di di di di di sant sama mag ji xadiloo loo naam sire nee naa la katey sa yaay réew mi doo fi ñaaw nee naa la yéen ba ngeen di tukki ñu leen di daggal billet koñ ba xam nga la lañ doon wax ñii lan la ñuy tukki ndax seen seen ndey tedd na sa yaay dong moy katti cham tabax pikin keur gu mak da dekk ba sama mag ji nga bax bari valeur tubaari ma salla nga juddu ni nga juddo magge ni nga magge jëfe ni nga jëfe ci digg France ko dëkkalul du dekk ko du lek ko biye du sama mag ji lo bëgg a dégg ci digg France rew mi daanu ñu bax ñi bëgg ma ku bax bëgg ma kuma pañ kuma pañ seto man mako wax man maam Ndiaye Savon téye kii man maam Ndiaye ku lu waay xool ci man ba bañ ma rek xoolaat leen ay maamam bu ngeen ko xoolee maamam bulloo ji la woon dañ ko daan tamponné euh, jëw kiiwu ja nuñ koy waxatee béjjënu ja waaw bu ñu tamponné sa maam béjjënu ja lu ma ci man ah Abdou Khader Jeylaani sama waa ji ku ñu jël sa maam ma ne ku ñu jël sa maam tamponné ko béjjanu jël lu ma ci mën ah kooku doo ma mën a bëgg ndax tubaarikaal la sama maam ilimaani ilimaani la te sama maam da daan tëdd bu guddi jug sangu ba set dugg ci jàkkaam jee daal di julli julli ñaari ràq yéene dëkk bépp doo tëdd waaw ku si sa maam bon lu ma ci mën man ilimaani ilimaan yey sama maam tubaarikaal la maasàllaa réew mi duma ci ñaaw gis nga France gi ñi fi ne ñëpp samay mbokk lañ ndax tubaari kàlla man sama maam famille bu baax la bokk ay wax amatul ci réew mi pour tontu non sens euh, parce que moi ma level sama level <laughs> sama kii nuñ koy waxatee sama kii dépassé na loolu sama level dépassé na loolu oh my god maa ngi ni ci digg France di lek ay far jal mu bak jal cham jal ma ca ayre jal ma neex maawa sama waji ku lekul far luma ci man maa ngi ci digg Europe di ko ruq ba mu melni ni ak ba suba damay tukki def tour du monde wali sek ba ma dem dëbb ko ba mu melni ni ak ba lan moy problème bi ak lan moy ka bi jambaay sama waji ku ñëwul lu man ci mën a ah jambaay ku mbaay sama waji me mère sa yaay me jaabey sa yaay sha Allah ku ñewut luma ci man aji mas mu bax mu gën mu sama waji ah my god pare day def effet tu refel na xale yi fi bëgg ñew do bu bari de <laughs> ba bari xamal mo na dama leen traumatiser sama ñew Paris bi dafa sama ñew Paris bi dafa saaf sama pari bi dafa fashion sama ñëw bi moo jàkk sama moo pari bi oh my god oh mata job suba tel mo mo hotel bu melni jam, jàmm barke Seydina Muhammad Mata de ku ne teraluma la teralu la ci jeunit bi danga mën wax ju ñaaw rek te diko wax Barki Serigne Fallou Mata job bari valeur Matar dalay woo ndax lekk nga Matar dalay woo ndax añ nga Matar dalay woo ndax reer nga hôtel la ma jëla hôtel bu baax xool leen sama hôtel bi ma tëdd xool leen sama hôtel bi ma tëdd dama ne ngeen xool hôtel bi ma tëdd gis ngeen hôtel bi ma tëdd dama teg ba teg màdd dama teg ba teg màdd gis ngeen hôtel bi frigo bi dañ ko duy ba mu fees barke Seydina Mohamed Matar Diop suba teel moom dama koy ñaanal yàlla jàmm ak salaam ak gudd fan ak wér gu yaram ndax nee naa la nga jël plus de trente personnes déedéet déedéet plus de xaw ma ñaata nit la sax bëpp na cinquante personne daggal leen billet jëlal leen hôtel di leen lekkloo di leen naanloo teg ci di leen xool ndax tëdd nañ hôtel biñ la jox maam neex na la sa néeg neex na la kilim bi mi ngi tàkk lan nga bëgg loolu garmi moo ko mën barke Seydina Mohamed eh man sama làmmiñ bi dafa rëy man su ma ñëwoon fii Matar Diop suba teel euh, kii ma su ma ñëwoon fii man Matar suba teel cof ma man sama ceeb kenn nii ne ko te loolu war ngeen koo xam ci man man su ma ñëwoon fii Matar Diop suba teel cof ma <laughs> dootul jara ci dara ci réew mi barke Seydina Mohamed zénith bi amul kenn kuy wax Matar teraluma man Matar daf ma teral Matar Diop suba teel barke Seydina Mohamed damaa teral fii ñi fi ñëwoon ñu bari ñibbi nañ man dafa ma ne toogal bul toog sa séjour ba mu jeex parce que da ngay liggéey waaye wax ma ñaata nga fi bëgg a toog ma fayal la hôtel dóor xaalis bi ci table bi fayal ma hôtel jox ma argent de poche jox ma ma lekk jox ma ma naan jëndal ma billet waa ki la jëndal billet jox la argent de poche jox la otal kooku lum la deseel man bi may am sama sama sama sama sama tur bi Matar fekkewu ko kenn fekkewu ko tur bi maa ko amal sama bopp waaye nag ku def geste bu rafet dañ koy wax Zénith bi amul xale bu fi teg tànk te yuuxoo dërmeluwoo man maa ko wax man maam Ndiaye Savon man ma Matar jox na ma argent de poche daggal na ma billet teg na ma ci hôtel bu baax teg ci di ma nemmeeku ndax am nga ndox maam loo bëgg a lekk loo bëgg a naan sama frigo baa ngi ni bu leen neexee ma wan leen ko barke Seydina Muhammad frigo bi xaal sax am na fi xool leen sama frigo bi dafa transparente xool leen sama frigo bi man duma fenal kenn man ku ma defalul lu baax ci àddina du ma la fenal man maam Ndiaye Savon du la fenal man du ma fenal kenn ku yàlla di bind man ma taa jóob suba teel bu ma defalul woon dala ah su ma ñibbee day dégg dama naan nga yóbbu doomu aadama yi sonal leen déedéet sama waa ji defoo loolu jox nga ma xaalis dëkkal nga ma dëkkoo nga ma yàlla na sa jàmm na la yàlla teral yàlla na la yàlla sàmm yàlla boo gis loo ragal ndax nee naa la gàllaaj bi gën a for mooy jox doomu aadama mu lekk gàllaaj bi gën a for mooy bégal doomu aadama te naan ma foo bëgg a dem boole ma ak oto bu may yóbbu di ma indi may taxawaalu di dem ak ñëw fa ne ma dem fa loolu yombul maye leen ma ko kër Matar Diop suba teel ba Tuubaa Mbàkke Zénith bi amul ku fi ñëw te ne ñamoo ñëpp a ñam ñëpp ñam Zénith bi amul xale bu fi ñëw ne ñamuma kenn fayalul boppam hôtel tey maak ay la changel hôtel maak Aïcha la changel hôtel indi ñu ci hôtel building bu mag waa dama leen di laaj gis ngeen bii hôtel xolal leen ma bii hôtel xool leen gis ngeen bii bu baax sama changel tey ne ma yow fi ngay dem Paris bi ngay dem ak ak kii bi nu mu tuddati fi ngay dem di lekki ak di fa toog di waxtaanee dafa sorek sa hôtel kaay moo tëdd ci digg Paris eh, yéen ñi ma sa ñëw Paris digg Paris euh, hôtel yomb na hôtel yi yombul man tukki naa dëkk bu ne Chine hôtel bi dafa yomb dubaay hôtel bi dafa yomb Maroc hôtel yi dafa yomb euh, Turquie hôtel yi dafa yomb waaye fii ci digg France hôtel yi yombul benn yoon lii kay man maa leen ko hôtel yi yombul benn yoon kon nag ki la jox hôtel jox la nga lekk jox la nga naan jox la argent de poche jëndal la billet waa kooku lum mu la deseel man de deseelu ma dara wax fa dëgg yàlla di la ñaanal rek loo mën ren bu déwénee yàlla na yokk yàlla na la yàlla defal jàmm yàlla boo gis loo ragal ndax tey ñi bëggoon ñëw te am visa wut visa ba sonn nga indi leen am na ñoo xam yàgg nañoo def visa te mënuñu am tey xale yëpp nga wutal leen visa ñu ñëw xale yëpp nga wutal leen visa Matar man dama lay ñaanal nag wax fa dëgg yàlla man maam Ndiaye Savon waxkat laa man sama ni na lu ko kuma ne bax nga bax na kuma ne bon nga bon nga man suma xole ni nit ba ne kii dafa bon xam ni koku dafa bon mais mata Diop mu suma ko deg mu ni ni mata dang koy wax lo sax monuko mu ne la deug la hmm mang ko lijjanti lay wo ya gore ya bax ya am personnalité yaay fekk bu amul dara nga def ci dara ba mu taxaw label nga indi label lo bëgg a ci hotel musique lo bëgg a dégg réew mi day daanu ba fa dëgg yàlla France jàmm laa fi am man maam Njaay savon fu may dem dama yóbbu sama xaalis man mi toog ma dem damay wéccee ko xaalis bu bari yóbbu man moom loolu yàlla bindee ma ko sama oro yaa ngi nii oro yi may ndee ngi nii ma ci dërëm xanaa ma jënd ci ay yére yooyu yu ma sol ak yu ma cokko cokko ci ya parfum bu cher laa ci jënd mais xaas bi may indi woon bi may ñëw damaa wecce ko sama xaas indi ko waaye lekkuma ci dara xaas baa ngi nii ma téye parce que loo bëgg a jënd ñu ne la loolu indi wuñ la fii ñun ñooy jënd lépp ndox booy naan ñooy jënd boisson ñooy jënd lépp ñooy jënd kon jëw ba jubba nag loo bëgg a dee gàtt Zénith bi toj na réew mi yëngu na su ma gisul woon sama bopp ma ñëwee buñ ma nee sëy dama naan hmm, ah. laa ilaaha illallaah yaa tax ma amaat envie ñëw France. ku baax ci réew mi dama koy wax ku bon tàllalal xale yi dañoo xam ko euh, mu mataar dañoo xam xale yu ñuy indi dañoo xam xale yu ñuy indi duñu ni n'importe qui ça leen nam yéen ñëpp nag di leen nuyu di bi neex na génique bi neex na de bu neexul ba tey ñëw na mais fii a neex fii saf fii neex fii saf fii neex fii la saf man de problème mu natta bii maa ngi koy déglu sànq ba léegi man damay jaaxle man Sénégal goo xam ne chaque jour kaa chaque jour kaa Sénégal yéen du ngeen jéem wut loo leen liggéey chaque jour kaa man damay jaaxle nii ma toogee ah problème mu bii kaa bi délicieux na kaa bi délicieux na de. Hmm. kaa bi bon appétit rek bon appétit rek bon appétit munu ma cee wax li ma ca doon wax wax naa ko ci ma ciy waxaat munu ma cee waxaat dara wax fa dëgg yàlla sëy bii daal moom bu dee dafa gën yàlla na leen yàlla boolewaat lii daal bu ci kenn wax naka sudul noonu man daal wax fa dëgg yàlla bu dee daa gën yàlla na leen yàlla boolewaat bu dee gënul yàlla na leen yàlla tàqale ci ci darajay Alaaji fàll Mbàkke sallallahu alayhi wa sallam man yow mbay moom dafa réew moom moom dafa réew waaye nit ku baax la ndax man mii ba ma ñëwee fii dama koo séen di defanteek moom naan kii ni mu fuuyee jàpp jigéen ñi di dóor waaye daal bi ma toogee moom une laa xam ne kii dof la ku mu jotee yaa ko tooñ man doog a ñëw dama ko jéppi woon naan kii ni mu soofee jàpp jigéen ñi di dóor Mario Mbaye mii waaye wax fa dëgg yàlla ah wax ji dal munuma ci xuus sey bi dal mom nako yalla ci aras Mario mbay nak neena na mam maam sa bo est-ce do ñew ma takk la ne ko man déjà man duma sa morom c'est pas ton égal comme yeen seen wa kër da ngeen pank man dugguma ci yeen may ma sama jam may ma ma jall man ni nit ku bax la nak franchement nit togu tok mom euh do ko xam wax fa dëgg yàlla man mosuma toog ku jigéen ki ku jigéen ki bu fàtte am fa yi moom laay far parce que jigéen la te te te te te jigéen ñun ñëpp benn bopp lañ kenn mënuñu kenn mënuñoo xar ñaar euh, ñun ñëpp ñoo yam ci yàlla waaye Mario mbay moom nit ku baax la franchement man moom li ma jot a dund ak moom ni ko Bercy bi lañ tase ñuy ambiance ma mo ma ko yàbbi ya naa la air eh, te bo gisé sax mi ngi ambiance ndey di kaf nga xamni ki dafa bëgg jabaram oh ñu bëggante ndaxte joom nga waroo won genn di wax sa jëk sa jëk ji dalaa noba noba noba ba ay famem xam ko ñëpp ko xam barke sayidina Muhammad sey bi bu gëné yalla nako yalla def ci allah ji fallu Mbàkke bala maglu dewen ci katanu yalla yalla na leer kuy ñaan ñaanal loolu bu kenn di wax wax bu ñaaw yal na leen yàlla jàppale ba ñu sëyaat parce que Mario mbay danga koy xool xam ni dafa bëgg ci këram dafa bëgg jabaram Mario Mbaye boo ko nee man toog naa journaliste yi di ko di ko introsé mais bu ñu ko laajee ci nate pour mu wax danaan àdduna du yàgg ba ma wax ci moom parce que sama jabar la te dégg ngeen magam bi génn li mu wax magam bi génn nee na Mario mbay da daan nëbbal nate du ko bëgg ay waay sénégalais yi bu leen xonjotal ñii bu leen xonjotal ñi ba ñu bañante ñaar ñi bëggante nañ de ñu génn huit xawma xaw ma six ans ah, sëy moom loolu la sëy moom loolu la bëggante yaa ngi dégg man nag su ma sañoon wax fa dëgg yàlla bu ci kenn wax wax bu ñaar ñoom daal bu ci ñoom daal ku ci def sorti rek dëkk bi toj waaye nañu arrêté nag nañu arrêté ñun ñëpp ñoo yam senegal la benn bopp kenn kenn mënu koo xar ñaar ñaan ñi dañoo bëggante ni jaay wax nga bëgg geex Mario Mbaye dafa bëgg Ndaté Ndaté dafa bëgg Mario mbay yàlla na leen yàlla boole ci darajay ji Fàllu Mbàkke lii daal laa leen ñaanal wax fa dëgg yàlla lan ngeen ci wax du ngeen réglé yéen ñëpp la seen sëy yi am problème bu guddi jotee yéen ñëpp la ñu noq jigéen ñi di wax ku nekk naa man sama jëkkër damay xooy sama jëkkër damay foon sama jëkkër du dóore mané la xalé goor ya gis ku ndul nok ñepp lañuy nok xalé xale yu jigéen yi tamit gis goor gu ndul saga ñepp lañuy saga ba paré xalé yu jigéen dañoo réew toto toto toto dañuy wax dañuy toj ay tubab lañ man suma méré damay toj rek suma méré damay toj rek tojo tojo tojo tojo tojo toj xey jëndaat dara ko ci adina bay leen seen toj gi ñen ne yalla na leen yalla defal jamm yalla na leen yalla sam ar leen yalla bu sey bi tass yal na leen yàlla dàqal saytaane yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar yal na leen yàlla yéen ñaar ñi dañoo bëggante lu ci waay di wax ñu ngeen tëj seen gémmiñ yéen senegale yi te yàqamti ngeen kaa bu am rek ba ku ci nekk di direct naan waaw waru ko woon wax ay waay loolu ñii ba ñuy joxante seen guro yi ndax da ngeen koo yëg man de ne damaa yeew sama yoon nekk ci waxuma ci kenn dinaa ci laal ma man moom gàtt gàtt dinaa ci ñam li ma ci jot a ñam ñi rek doy na ma sëkk ndax ma ne dama xool Mario Mbaye xam ni dafa nopp jabaram te jabaram bañu ko du àdduna mu solo ku dee bàyyi projet ko àdduna mu solo te ku dee bàyyi projet ku dee bàyyi projet yàlla na yàlla defal jàmm sàmm leen daal man daal loolu la am ci lu may wax yéen nag bàyyi leen di ma envoyé ay ya. jëkkër ak jabar lu ci waay di wax borom marok sama doom ji maa ngi lay nuyu yaay faal moom maam njaay savon Adja mina chéri Sénégal bon heure jot seexu yàlla yi sama doom sama raq yi noo leen def Euh, Sénégal ba heure fa jot bindal leen ma ko fii yow mi di demandé te maa may jàmm sa mi di demandé nga mel ni dem doo jàmm Sénégal ba heure fa jot. une waaye kii doo Ami Njaay ay man Ami Njaay yow mi yéen ñi di demandé te ngeen maa may jàmm. Euh, man de borom létt yi dama koo xam waaye dama fàtte tur bi xartu mbay yaaram bi te mu def renversé yi dama fàtte tur bi nuyu naa la jaal bu ba jaal ci am dof bi ci loo ne xaritu mbay yaaram bi de nii di ma may ay reetaan ak lu ne moom laa bëgg nuyu xaw ma turam wa ay man ay man kii nii doomu doomu Aziz doomu kii kii way Baay Njaay ana ma sata Khoudia Mbaye Khoudia Mbaye sama mag ji ci loo sama mag ju bari valeur ji nga ne kaa bi ñaata man ñaata man ay dañ jaal mu bag jaal jaam jaal ma caayre loo bëgg dégg ci réew mi tubaarikàlla maasàllaa wax amatul fante de bo ñewon Paris di nga tuddu yal Paris neex na merci xam ay dama jang dama mëna leex merci mes amours thank you very much de tuba yi tubaab di ma demandé ami di ma demandé appel la xam mu mëna jëlé lo leen may ay man ki aji mas kay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp sama xarit yi di wax bon naa mocce di wax na mu naa suba nag ku ma bëgg a gis na nga ñëw kii maak Abdou Xaadar ñoo fay jaay càppaaculi na ngeen ñëw càppaaculi dix-huitième France càppa càppa càppa bu ngeen ñëw ba dix-huitième la dangeen laajte càppa restaurant bi càppa la tudd càppa culi suba maa fay jaay bu neexee yàlla moo tax ba bëgg a nelaw nii dagg direct bi ndax suba damay teel a xëy cinq cent mille kan mënuñu la ko fay ngay naatee xëy xam naa ne fii de cinq cent mille yomb na leen benn billet da ngay jël mu nekk soixante mille billet bi gën a naw cinquante trois mille cinq cent la fii dam na xaalis trois mille cinq cent bu dee journée de trente deux mille cinq cent lañ lay fay trente deux mille cinq cent weer bu dee ñaata la euh, bu dee dix mille dix weer bu dee day nekk dix mille dix mille weer bu dee trois mille la ñetti trois cent mille ah ak ñetti ñetti trois mille ñetti trois cent mille de moom six cent neuf cent presque un million ngay am weer un million un million danga fi fiy am weer ah liggéey bi de neex na chaque weer waaw chaque weer un million da nga fiy am ndax billet bu bi lañ lay fay journée boo ko dajalee dangay am un ak lu teg ba yàlla ko am jom ñëw fii toog fi dix ans dix ans de dix millions la dix millions la moom wax fa dëgg yàlla dix ans yi dix millions dix millions nag ndawul ci deux ans déedéet dix ans mooy deux million te mën nga am sa liggéey booy gonto wax fa dëgg yàlla fii neex na de bu pare sénégalais yi fi nekk sénégalais yi fi nekk ñu góor ñi baax sénégalais goor yi bax nañ day am jom di liggéey wax fa dëgg yaal ñu ngi liggéey am jom lool yal na leen mu daal waaye kii du bambi boxo yoxo bambi boxo yoxo na mën naa la de fi mu ne damaa ngi pari nii du zone ze parce que Seydina Mohamed pari ngi koy dëbb ba mel suul ak ba jëkk hmm. Le Paris n'est pas Paris dafa neex je l'aime bien Paris Demain on va voyager le euh, vendredi mhm. ah. vendredi on va war voyager vendredi maa ngi war a voyage yi mais neex na moom macha allah fa dëgg yàlla neex na lu waaye gàtt dégg-dégg xam ne neex na neex na moom wa fa dëgg yàlla France neex na torop sax awa caam caam baabel demba caam gis naa sa message caam baabel demba caam ma ca États-Unis di ko ruq ba mu nooy njaay ma sëriñ mbaaco bàyyi fanta mbuub loo bëgg a déggaat bàyyi fanta mbuub jaal mbuub jaal caam jaal ma ca ayre jaal ma neex maawoo sama waa ji sama waa ji a ngi ci gàccee ngi ci tubaarikaal la loo bëgg dee gàtt lan mëstaam ñu dagg direct bi nag ba suba je suis maa ngi leen di nuyu yéen maa ngi leen nuyu di wax je t'aime fort I love you I don't do